tey man nga xëy. <laughs> allo. bonjour salaamaaleykum man la Aly Ngouille Ndiaye. waaw Aly ministre euh, de l'énergie. Oui. bon vous voyez que temps yii yëpp maa ngi doon def euh, de tour central yi. bon li may wax sénégale yi mooy nañu dalal seen xel parce que à travers central yi. bon courant dina doy ba nga xamante ni bii nii euh, du ñu am benn problème pour l'année 2012 2013. et que tu, je rassure tous les Sénégalais que tout va se passer très bien. tout va se passer très bien ça débute de couper ngay wax tout va se passer très bien affaire yi commencé na couper yaa ngi dégg 24 heures ou bien 48 heures sama secteur fële dans les benn baraag y' a pas de courant. tu comprends kon boo jarul ngay jéem a baax sénégalais yi xoolal li am ay. PDS yi bu leen ko créer fii quoi ay 2 jours coupé 3 parce que PDS ñoom amuñu woon ay idée et puis yow bul bul wax loolu. si boo waxee loolu mën na influencer que boy yi ñuy wàcc ci mbedd mi di toj ay car. ou bien di toj ay mairie boy dañu war a toj car yi kenn toj dara donc. bul doon seytaane comme ni la ko Maricol Seck waxee bul ko bul ko bul ko doon waaw bul ko doon. bul ko doon doonal góor doonal góor. man góor laa. non yorol ji koy góor. mais yow lan yor lan la wan fii. du jikko góor non non non xam naa ni góor nga mais dama bëgg nga yor jikkoy góor. waaye yow wani gis nga soo manqué courant waxal da ngaa manqué yorol jikkoy góor jikkoy góor man góor laa góor laa loolu doo ko dindi góor laa jikkoy góor laa yore boo buggee ma wax wax góor nga dégg yaa may dégg man góor laa la homme man du ma mu dellu ginnaaw yor jikkoy góor près de la la wax. <laughs> dem la sa yoon yoru jikko góor next next. <laughs> tey moom saa ba pare. <laughs> next. booy filmé leen waaye ñàkk ngeen fay di dara quoi non non non fii la ci biir bi daw waxuma ko. kan. lii lii géejewaay la dëkk lii caméraman bi dëkk waay bu ñëwee fii rek day am problème quoi xaw lan lay ree rek géejewaay quoi. da nga ñàkk fay di rek allo na man sa fans laa. <laughs> waaw di la béggee. bëgg la. oui. teg la fu sori nag. waaw. gis nga ñoom Maricor Seck ak ki génn léegi li ñu lay jéem a wax. waaw ñun daf ñoo metti merci oui daf ñoo metti ba suñ kanam yàlla. non non non c' est la vie da ngay liggéey. c' la sa liggéey nga yor di ko ci kot di ko liggéey. waaw ñun nag ñu ngi sa ginnaaw tey. ñi ngi sa ginnaaw ëllëg. bu yeboo nag nañ la wax lu ne waaye seytaane googu ñuy wax nekkul ci yow. waaw seytaane googu ñuy wax nekkul ci yow. voilà waaw. <laughs> tu tu encaisses tout quoi bon dinañ la wax lu ñaaw. moo yow dañu soxor yow. non c'est pas yooyu ñuy wax yëpp dañu soxor ni yow jikko ju rafet nga am. baax bay bëgg a dee. <laughs> rafet jantal. yaa ngi may dégg xanaa tuuti rek nga liñ siy wax noonu ñoom li ñuy wax noonu. xanaa bu bu fekkee am na sax tuuti la mooy lan tuuti fumiste tuuti fumiste te <laughs> xam nga fumiste du seytaane. waaw <laughs> fumiste nekkul seytaane mooy yow da ngay def sa liggéey ci kaw jaxase nit ñi waaye doo seytaane tuuti fumiste la rek <laughs> waaw. ok waaw merci merci. Merci. Ah, c'est ça, il faut... Non, non, non, <laughs> il, faut, il faut tout encaisser, il faut tout encaisser. Non, mais tu as dit que tu es un ouais, artiste. Ouais. Donc encaisse-le. Encaisse-le. C'est ça. C'est ça. ma ni quel gàcce. ndeysaan. man rusuma loolu di. non nee na gentil nga et tout mais c'est que da nga xaw a féministe tuuti quoi. non non loolu sax waru ko wax. mais am na ku ma waxaat tamit sa wàllu sangu ak sa wàllu solo. yow xamoo boo dëree ba pare nga bëgg kooku day yokk sa dër wala xamoo loolu yow laaj nga. su fekkee bu da ngay bége sa wax bala ngay bbb bâtiment yëpp yëngatu mel ni comme rendement de la terre rendement de la terre loolu soo ko bëggee booleeg reetaan parce que reetaan mooy indi lool reetaan mooy indi lan bu bari moom mooy indi ngay wax di bége ma di def bbb